commerce di ma fenal ak di ma kàccal ngir nag bëgg a yàq sama der waaye nag loolee mënuñu ko amul sama yenn bien yoo xam ne daan nañu koy jël te mbir mii nga xamante ni ñoo koy wax at mu jot nañu ci publier ab article te boobaak léegi maanaam toll na si ñaar fukki at ak ñaar amul lenn lu ñaaw lu ñu may toppee amul lenn loo xam ne moom laa def ba tey ci biir journal bi délégé ko ñu fekk ko fa muy weddi tuuma yi nee ay adversaire politique ama ñoo ko bëgg a yàq yéen kay gi di la turbina xëy duñu gi dani jamono ji nag am na ñu bari ñoo xam ne ñoo ngi koy jàppale waaye nag ca bitim réew ndax diaspora sénégalaise bi ñoo ngi jàppale Bougane Gueye Dany patron de presse yi ñoo ngi ciy dox nag tànki jàmm yéen a kaay gi di réew mi ko di cee xëy ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique député yi nga xam ne ñoom lañ siy tudd Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ñoom ñaar ñëpp ñu bokk ci benn bokk yaakaar ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal danañu leen déglu yéen a gi di Vox Populi ak Sud Quotidien di ci diwaanu Saint-Louis maanaam pëcc xam ne mooy Abba Mbaye Abba Mbaye bokk ci taxawu Sénégal ak Cheikh Bamba Dièye ñoom ñaar jamono ji ana kan lañ si investir fi nga xam ne mooy commune bu Saint-Louis coow laa nga mel ni tulleeg màlle yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na coalition Yewwi Askan Wi niki démb daal na ñuy déposé seen caution yéen gi di enquête ak élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ni mu xëyee tu ko ko la crise des ambitions yéen a kaay gi di le quotidien nee na en tout cas contestation nga xam ne moo am ci biir coalition yi daan nay bëri lool ca diwaanu ñi nga xam ne ñooy waa parti socialiste dañoo lànk ba tëdd san naaj wa li nga xam ne moom la leen waa benn bokk yaakaar bëgg imposé yéen a kaay gi di direct news nee jël na Benoît Sambou daal di koy investir ci commune bu Ziguinchor moo taxit Abdoulaye Balde moom nag mer na ba maar de tali moom Abdoulaye Balde nee na nag Macky Sall daf koo trahir moom Abdoulaye Balde sax jamono ji nag maanaam ma rogo jeeru ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bu ñu ngeen déggee ñu ne leen Ousmane Sonko ak Abdoulaye Balde ànd nañ sa diwaanu Ziguinchor bu a kaay gi di source nee na Abdoulaye Balde bàyyi na Benoît Sambou mi nga xam ne moom la Macky sal nag teg ci diwaanu Ziguinchor ndax du pari risqué ci président Macky Sall yéen a kaay gi du l'Observateur nee na en tout cas li am ba des salla mooy duo Ousmane Sonko Abdoulaye Balde dina metti lool ci nag ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar sa diwaanu Ziguinchor yéen a kaay gi di xii xëy duñu xibaar nan ñu nag soo muy tuulee li nar a xew ci Benno Bokk Yaakaar ci ndakaar ak ci Thiès ak ci Kaolack ak ci Kaffrine moo nar raw nag suuf su yëngu ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax nag Macky Sall fii ci ndakaaro ci capital bi te nag maanaam benn bokk yaakaar du yëngu loolee lu jafe-jafe la waaye nag rawatina ca diwaanu Thiès yéen kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu Amadou Ba la Macky Sall def coordonnateur national benn bokk yaakaar ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la yéen kaay gi di Walf Fadjri leen lu nekk mën naa am ci wàllum politique ndax ca diwaanu Tivaouane benn bokk yaakaar ak Yewwi Askan Wi ñoo fa ànd yéen kaay gi di Rewmi Quotidien bàyyi mbirum élection yi wax ci li nga xam ne ni ki démb moo xewoon ca tribunalum Dakar am benn waay boo xam ne dañu ko fa doon attee ndax nag nag dafa triandé ab sëriñam lu toll ci juróom benn ci ay million yéene kaay gi du l'observateur xëy nag def ab enquête bu yaato yaato si jigéen ñi nga xam ne ñooy jaay seen bopp te di koy jaarale nag ci internet bi yéene gi dee sat xëy dañu xibaar naa ñu nag kaan bi ñaari weer moo tere mu dikk waaye nag bëri na ay joueurs sénégalais yoo xam ne jamono ji nekkuñu ci forme yéene kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa rëg-rëk muy wax ci Bombardier mi nga xam ne dañu koo dóor fan yi ñu génn mu daal di kaaw moom rëg-rëk nee na MMA sport de combat boo xam ne lenn lu nekk mën na